rakitaan rakitaan oh, oh. waay yàlla na sa jàmm yàgg xobee bëgg jigéen bëgg jigéen nga li mu laal sax sama talpi ndambax bi tax la laal sama xol laal nga laalaake de xool ko muy melasiku poto lamp sax boo ko boo pot xobee dina ko romb doxaan ko tur bi nan la yaama mais c'est extraordinaire comme nom mais amal jàmm ah. d'accord merci. Il merde de te <laughs> Begitu. Amor, sama domun day. Kau bilang apa? Nau makan. Sama alhamdulillah. Melip jama. Ah. Yo, kau bilang yo. Nengah new pursa aku sih kamu kamu football. Walau yo nengah dohan sih. Walau lah. Kau bilang tuh begitu jigen gyo. Munda pun punya kangen nengah begi alisisen. Nengah begi alisisen. Nukar rau nggak begi jigen. Nengah akan gitu mah. Makin sangat kau fair di sana kalau begi jigen di macai tuh di charmer di def yu sa ko be mënoo nek nit xobi kañ nga fi simmi njulli ak kañ nga fi commencé doxaan da ngaa mun di réglé ki bañu ma ci dara di nga talaté ndër bi Aliou Cissé doon wax fa lañ jëm ma ak yow wa avertissement reçu 5 sur 5 mooy li gën mooy li gën mais bay musuma simni ni senef sa nijaay la dé mais bay am nga toos bu xam football waay. waaw yow yow yow loolu moy géej gi saf na xorom. eh mais dégg loolu. kooku football mondial histoire la maîtriser nii ci boppam di ko manipule nu mu ko neexee. Eh, oh, te li ci gën a neex. Ah. mooy Sénégal daa dem coupe du monde. Eh, mais déggal loolu. CNF dina ñu jàngal lu bare bare bare bare bare ci équipe africain yi war a taxawee ca mondial ba. loolu de moom xanaa mooy chaque jour damay ñëw di naan si café rek. ah euh, mën ngaa ñëw de. coow jibul man sama waay nga fii. ah gën la gis rek. bëggee waay. allez Mor. fais attention fais gaffe. ñoo <laughs> Oke, leen rek mais. ma gaan nga. ok dama bu Senef ñëwee naa la woo. soo ñoo fa. à tout ak beñe yu bari jënd na beñe ba dina fi rek ndax bëgg bi sama kees ku la maa ko yow eh yow laay wax taxawal noonu taxawal nii taxawal nii yow lu ñaaw na nga ko mën ah kii nga jàpp dàq pour lan. yow man maa dàq yow. yow eh, nekk fi di boole affaire xale yow noonu looy nekk fi di boole. kan moo ah. dàq. yow nee ma ma la dàq. yow ma romb la fee ngay waxtu. ma dëkk mu naan café foot. naan doot fa demati. ci lu tax mu naan ma ka fa nekk ma ne ma bu ma fa ñëw yow kaay nga toog. fi di boole affaire xale yooyu. boole boole eh eh dama nga toog. yaa eh, ñàkk

yaa ma mais la doon jéem a kàmbal fii nii ma képp ko mu ñëw fi naan ay xam-xam football la fi wut booy nañoo naqari dimbali yaa ma mais ngay gis amul lu dul fukki at ak juróom mineur ëppal na ko de yaa ma ah. yaa ma ëppal na kenn yaa ma na ëppal na la yaa ma yaa ma mag na de waaw yow muy moom da <laughs> da ngeen ëppal eh, tëtëtë mais nag toog guddal fan nag de ah. léegi léegi lañ lay waxtaanee maag booy bii yéen ñaar ñi doon xuloo non non moom c'est que bi mu ñëwee xam-xamu la doon sàkku si moo dem ba ci biir bëgg xam jigéen te fii xam-xamu jigéen amu fi cadre boobu nag voilà damaa bëgg mu leer nañ ci règlement wu intérieur u kees ku bi jërëjëf café foot lañu wax képp ku ñëw di jënd si café di wax leneen lu bokkul ak football bu ko jaayati café jeex na waaye képp ku fi ñëw di jënd si café tey waxtaanee football mm. na toog jeex na kon yow jéggal naa la ci xol bu sedd football waaw football rek ne mooy xobe kii Rasulullah taalibe Aliou Cissé Aliou Cissé benn taalibe la am muy kii roy na alusi sama jek tak Ayo. Jilip. ana rasay eh dindi rasay ñu xooleew eh wan ko si bu ndaw bi la ilaha illallah ana say ver xobe melon ni tok tok conférence de presse cum ajal say ver la ilaha illallah waxal talaatay ender. cum sama xol sedd mu ngi noonu maanaam daal yow ni nga bëggee équipe nationale bu Sénégal. waaw waaw moom noonu la bëggee Aliou Cissé. ndeysaan présentation baa ngi noonu. bëgg nga ku jërë bëgg. xobee sois le bienvenu. mbaa yaa ngi ci jàmm. sant yàlla. toos. waaw Aliou Cissé. waaw. dama ko bëgg Seydina Aliou Cissé. mu sell mu sell mi dama ko bëgg toos. Cissé. Aliou ah! بغ نكو خامتاني كروك مامي خوس مو جال تا كان جالو كو بغ نكو خامتاني لولي ديغ نك جي ريومي اك بيتيم ريو واي مو جاب خام لي مو بغ كونسانتري مون تا يالا تا با تاي ام لي ام تاخول مو باي بن مير لا دو شانس سي لو مير غيس نا ادلو خامل لي غا ndaysan nga andak mhm. dal ta te andak patience mhm. na nga xam fa nga jëm rek yow café li rek am solo alu ci sen li la wone kérok ba nga xamanteni do nañ def deuxième tour contre Égypte keroog ba mu toogee jàkkaarloo askan. ndeysaan. tekki ay veeram. Mhm. xool leen ci bët. Mhm. tubaab yu bare bare dañu rasu saal ba. Mhm. ndax gaynde lu nu gis na. kase mu jàkkaarloo ne askan bi. woo naa leen ci bisum talaata ndeer mu ne lan mu ne retour contre Égypte. mais toos keroog laa gis lu ma mës a gis keroog esat Mohamed Salah. ak el neniik waa Égypte ki ay mbokam duñu fàtte mukk keroog suñu suñu tàkkusaan boobu stade Abdoulaye Wade laser yi tàkk hmm. fumigène yi tàkk ñun ak ñoom ñun ak ñoom cent vingt minutes de souffrance plus série penalty match boobu xam nga ale bi demoo woon maa demoon Égypte ndeysaan moor laser Sénégal la leen Égypte lebal ci laser fay ñu ko fàtte naa yaa ngi woon ale ba match ale maa ngi woon ca hôtel ba ba nu si di di dugg ci hôtel bi lan ñu teeroo mooy ay laser ah ma ne xëy na jeu de lumière ñu dugg si toog ci sunu néeg dem ca douche ba war a sangu ndeg ñu teg fa ay laser aywa mu ngi ñaaw de ñu yeewu suba war a ndékki ñu tegal ay laser añ jot ñu woote añ ñu tegal ñu ay laser. ceebu laser. ceebu laser lañ ñu tegal. ndaw ceebu vert. ñu ni dénn waay ñu ñëw ca stade ba ñu teeroo waat ñu ay laser. ndegam ñun ñii supporter ñoo sonal waxatuma la ak joueur yi. moo tax man la Sénégalais ko am yërmande la waaye loo koy lebal na baax. moo tax ñun bu ñu ñëwee fay nañ leen ko. Ah, ñun bu ñu ñëwee ñun bu ñu ñëwee ñun bu ñu ñëwee dañ leen ne ñun dañoo woor. mel ni mel ni fas yéene wu leen jox laser. dajale laser yëpp ba heure ndogu timis ñu bacc leen ko ndogu yu saf saf ndogu laser yo xamanteni tek ko ci karamu gol gisatul dot ñu ko defati ndax xamal tax egypte li ci gëna neex hmm coupe bes ndaysan ñu inaugurer ak estade bu bes ndaysan ñu ni den wa ñu laa di qualifier pour une troisième fois à la compétition coupe du monde xanaa xol set na eh, toog na xam la neex yow da nga xam li neex si man nga koy laal ah? xam nga ni ba neex senegal la bëgg nga koy laal li ngay wax ni dafa mel da nga ni géej gi saf na xorom. barki yàlla. toos yàlla sa jàmm yàgg. amiin amiin. Super, le Sénégal écrit l'histoire, les lions